salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi dellu siwaat nañu di leen nuyu fii nu leen baaxoo nuyoo toog ak sunu kilifa sunu jëwriñ ñun ñëpp nga xam ne nii ngeen ko miine rek jataay bi miin ngeen ko saa yu ngeen seenee jataay bi dana leen wóor ne moom bu ngeen seenee jëmmam wala ngeen dégg kàddoom da ngeen xam ne ndigal bàyyikoon na ci sëriñam sunu sëriñ xalif général des mourides sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér mu am kàddu yoo xam ne saa yu jamono tolloo fii dana ko woo sant ko mu wax ak bokki taalibe yi kon nag ñun ñëpp nu ànd déglu Cheikh Mouhamadul Muntaxa nu Cheikh Mouhamadul Bachir. alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi nuyu bokki jullit yëpp di nuyu bokki taalibe yëpp di nuyu euh, euh, béykat yi yëpp. Euh, ndax euh, euh, manees naa wax ni nuyu itam liggéeykat yëpp ci turu sëriñ bi euh, daf ma wax muy te it muy teel ko lool am am ci mbégte lool ci bi mu koy bi ma ko bi bi bi bi bi muy wax ak man ma xam ne lii lu ko ñor la lu ko yitteel la it lu dara xelam la mu ne naa jottali bokki julli yi bokki taalibe yëpp eh, nañu daal di nag jublu jubluwaat ci tool ci tool yi waaye am na lu mu waxoon sax da ko gën a yeesalaat gën caa soññe bu baax ne nañu dellu ci gent yi eh, gën ko yeesal gën koo dundal loolu moo ko moo moo moo moom yitteel na ko lool wax na ko wax wax na ko ay ay yoon baamtu na ko ay yoon dañ dellu ci gent yi eh, gën ko yeesal gën ko dundal eh, kon nag eh, moom nee na na ñëpp dellu ci tool yi te itam daal ci jublu nag ak ak pëstif ak ak ndigal wax na taata jii rek joxe na ndigal nañ ñëpp tàmbali tool yi taata ji ñëw rek joxe na ci ndigal kon nag euh, ngeen dégg ko noonu euh, te xam ne sëriñ bi moom euh, liggéeyal sëriñ bi rek mooy li koy mooy yitteem liggéeyal ko ci lépp rawatina nag ci jaam ñi ci bokki julli yi bokki taalib yi liggéeykat yi loolu yitteem jépp gannaaw boo xamee ne jàmm yàlla wéy na boo xam ne goo xam ne gi nga xam ne kenn ku ne sa diggante sa yaa koy defal sa bopp bu loolu wéyee liggéey itam jëpp mi ngi ko def ci ci ci njaboot gi euh, euh, yéeneem ju rëy ci ñoom yéeneem ju rafet ci ñoom yitte ju mat sëkk ci moom ci ñoom euh, bëgg bëgg leen lu baax moo xam waaxir la moo xam baatin la ci biir ak ci bitti kon loolu moo waral euh, bu waxtu jotee rek euh, mu mu mu mu xelam bi yëpp dana jublu ci soññu euh, njaboot gi soññu leen ci liggéey ndax soññu soññi ci mbay jëme jëme ci tool yi mooy soññi ci liggéey rek ndax mbay dafa jiitu dafa dafa jiitu ci liggéey yi loolu moo tax kon ne mi ngi soññu ñëpp na ñëpp dellu ci tool yi te te te te dellu ci gent yi te te ndax gën a yeesal gent yi gën koo dundal kenn ku ci ne la nga xam ne moo ci sa taxawaay te la nga ci mën sa kem kattan loo ci mën rek nga def ko ngir soññ ko sa bopp soññ ko njaboot gi soññ ko bokki taalibe yi soññ ko ñi nga xam ne ñëpp Euh, euh, liggéey lañu xam euh, ndax gent yooyu yëpp bëgg a liggéey rek moo ko moo ko moo ko waraloon moo doon cosaan li kon sëñ bi dafa bëgg rek ñëpp dellu dellu dellu seen xel ci jaamu yàlla ak liggéey rek waaw kon gent yi ginnaaw mooy cosaan kenn ku ne euh, xam nga euh, sa cosaan euh, xam nga la waraloon gent yi xam nga la la la la la la la ko andi woon xam la la tax ñu ñu delloo di ko tuddee gent loolu lépp nag sëñ bi dafa bëgg rek ñu delloo at ci suñu xel ñun ñëpp ñu delloo suñu xel ci delloo ko ci liggéey rek waaw jaamu yàlla ak liggéey rek waaw moo tax mu ne na ñëpp delloo dellu si seen xel na ñëpp dellu ci tool yi fas yéene tàmbali liggéey bi altaata rek jox na ndigal ne kenn ku ne na na na na na na am pastifu tàmbali ci liggéey bi kon noonu rek la ko waxee ñor na ko lool yitteel na ko lool loolu lépp itam dara loolu bëgg su su suñu njëriñ rek la bëgg suñu njëriñal biir ak suñu njëriñal bitti bëgg yitam nu gën a góorgóorlu gën a gën gën a tegu ci yoon wa nekk ci li war a nekk waaw euh, li nga war li war a nekk euh, moom rek moo ci am solo yàlla mooy moo lépp euh, te noppi na ci nun waaye nag teg nañu ci yoon waaw ginnaaw teg nañu ci yoon nag euh, li li lii suñu wartiif di li noppal di lu gën ci noonu li gën a lew ci li gën a lew ci noonu gën a rafet ci noonu euh, mooy tegu ci yoon wa rek fas yéene nekk ci lan war a nekk jaamu yàlla ak liggéey rek loolu loolu rek la loolu rek la kon nag nañ ko dégg na ñun ñëpp te euh, am ci am ci passif wéy ci ndigal waxuma la sax njariñ lu wéy lu bari ci nekk waaye wéy ci ndigal képp dafa doy eh, yaakaar eh, ndax ku ku wéy ci ndigal moom eh, ndigal la moom lu la gën ci yow rek la moo la ciy fekk ah, kon nag nu nu gën a sant bu baax a baax ci suñuy kilifa di gën a yeesal suñuy cant di gën a déglu suñuy kilifa di di gën a sant suñu borom eh, ci ci ci ci ci suñuy kilifa waaw ah, rawatina ci nag eh, suñu suñu sëriñ Seex eh, Sidi Moxtaar mii tey nga xam ne bëggul dara léppam léppam da ko delloo ci liggéeyal sëriñ bi liggéeyal ko ci wàll yëpp nag mm, rawatina nag njaboot gi ak bokki taal bi ak bokki jullit yi loolu rek mooy soxlaam mooy yitteem mooy ajoom loolu moo waral itam waxtu wu waxtu wu jegee rek euh, mu daal di euh, bëgg ñëpp itam wëlbatiku def seen yitte jëpp mm, jëmee ko ci liggéey bi mm, buñ ko defee rek euh, rawatina ñu nu am te positif dafa ko diggal diggal boole si loolu la ca lépp booy woon am ci yaakaar te xam ne ngëneel rek moo nu ci fekk yëngutu yi yëpp suñu borom mën na cee def barke. Euh, yomb na ko lool euh, rawatina boo xamee ne nag euh, danoo jiima a góorgóorlu nekk ci lan war a nekk di wéy ci ndigal suñu kem kàttan def ci suñu lépp kon nan sant yàlla bu baax te góorgóorlu te gën a yéene gën gën di ci ndigal bu ñu ko defee rek daan noppalu biir daan noppalu ci lu duñ séentu dara loolu mbir mu yëwén rek lan lan lan lan lan ci war séentu suñ suñ su su suñ suñ mbir yëpp yëwén suñ yëpp suñ suñ biir suñ suñ biir defaru suñ biti defaru suñ tey defaru suñ ëllëg defaru loolu loolu lépp mi ngi ci biir way ci digal gi ndax ki ki ki digle moom eh, yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira rek la ñu moo tax mu digal di tere kon nag Euh, alhamdulilah rabbil alamin ngeen dégg ko noonu euh, te ñëpp ku ko déggul na ko na na ko jottali ku ko dégg na ko jottali ku ko déggul euh, te soññ soññ suñu bopp kenn ku ne na soññ boppam soññ ko xam ne moom la war a soññ nu jëm jëm ci diggal li waaw loolu rek la kon jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñëpp mbokki julli yi mbokki Euh, bokk yëpp ñu ngi leen di jotal ñu ngi sant leen jottali euh, cant sëriñ bi ci ñoom euh, ndax xam na fi nga xam ne baatam fi mu leen toll ak déglu ndigalam xam na fi mu leen toll ba tax na kon mi ngi mi ngi mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di di di di ñaan rek réew mi xel ma na ci daal bu baax a baax a baax waaye mi ngi ñaan dolli ci. Euh, ndax euh, ay xéewal rek euh, di fi sottiku te suñu moom jayal ñu lépp luy niru fitna ndax adduna moom fit fit naka jekk fitna rek la waaye rawatina suñ tollooy jamono ji fi di ngeen li nga xam ne moo xew ci suñu bokki réew yi arab yi di jullit ak fitna jëfa nekk amul yeesu jenn fitna jenn fitna ju ju ju ju ju toll ne ju ju weesu fitna jii nga xam ne moom la suñu suñu bokki jullit yi nekke amul jenn fitna joo xam ne mën na ko mën na ko mën na ko weesu kon euh, loo demee noonu rek euh, moom lañu sëriñ bii bañal euh, bëgg nu nekk ci rek lañu war a nekk te de suñu yite jëpp ñëwee ko jàmm yàlla liggéey rek kon noonu rek la demee ñu ngi sant ñëpp Euh, ci turu sëriñ bi euh, di ñaanal ñëpp euh, kenn ku ne yaa xam na nga bëgg waaye loo ko xam-xam suñu borom moo la gën a xam kon noo ngi ñaan kenn ku ne suñu borom gàttanu la ci sa mbirum bopp yéwénal la say mbir defal la ci barke bu lépp xëj jërë ngeen jëf kon nag bokk yi dégg ngeen kàddu yaa ngoogu ni ma ko waxee ci njàlbeen gi saa yu kàddum jibee rek mi ngi nu jëmee ci lu nu jëriñ àddina ak àllaaxira mag ñi dañoo wax ne gàncax gu nekk ndox ma ko saxal a koy suuxat te yoon wi nu nekk moom jaamu yàlla ak liggéey rek ñoo ko saxal koy it moo koy suuxat kon nag ndigal laa ngoogu sëñ bi ne na ñëpp delluwaat ci tool yi ca yeesalaat gent yi talaata ji nu la joxe ndigal fukki fan ak ci weer wi war doon ñaar fukki fan ci weeru wolof kon nag noo ngi seen no no mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla sotti xiiwal ak jàmm ci réew mi ci barke Serigne tubaa jërë ngeen jëf. weer wi day waaw nee na weer wi day weeru tedd moo tax sëriñ bi taamu taamu ñu ñu tàmbali ci liggéey bi weer wi mooy weeru tedd weeru rajab yi nu nekk. moo mooy weer wi nga xam ne moom la sëriñ bi taamoon bi muy sañ ci Tuubaa gi nu nekk kon nag ñun ñëpp nu góorgóorlu ci jëfe ndigal li te taasu ci barkeem.